ak kontaan te jàkkaarloog yéen bu baax a baax a baax fii ci Sénégal Buzz 221 ma ne ni ñu koy defee rek saa su ne di leen dalalal ay ndaanaan di leen dalalal ñi nga xamante ne yéen a leen xaar bëgg leen i gis waaye ni ko noonu nag ma dalal xale boo xamante ne nag sénégalais min nañ ko ci li nga xamante ni moo leen milieu musical mu yàgg cee wone boppam di ci bay waaram di ki nga xamante ni nag moo di Cheikh Mbacké Waly Cheikh Mbacké Waly nag mbokk yi tey moom laa toogal nag seet si ko fas yéene waxtaan ak moom di ndaanaan ci réew mi mon frère maa ngi mais sama copain sama copain maa ngi lay fay bu baax di la ñaanal jàmm ak sutura waa li tax li tax nga def ma ci sa ba déplacé wu fi nga nekk pour ñëw fii sama kër di ma interview maa ngi lay fayaat cër boobu di nuyu sénégalais yi ndax ginnaaw yàlla ak yonent bi fii lu fi waay mel rek sénégalais yi ñoo la ko def comme que mënuñoo dem ku ci nekk fa nga toog sa kër jox la loxo fi ma toog nii maa ngi naan asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barako képp kuy sénégalais rek maa ngi lay nuyu bu baax baax baax baax macha allah képp kuy sénégalais rek mu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax noonu la nuyoowee mais frère defati nga de gannaaw ci def nga dëkk. non non lii defuma xam nga dañu ne ci nekk ci été rek man comme yi man xoolal. xam nga Mor Talla Fall. mooy séeri àjjana. waaw moom bu may bu may jëndal bagage da jaral mu dagg billet ndax xam na damaa bëgg lu baax. waaw da koy réew yu bëri lay xeeb pour déplacer wu. jëndal ma ay bagage indil ma ko Mor Talla xam nga ne ku ne xam na ne Mor Talla Fall mooy séeri àjjana. waaw barke Cheikhul Khadim ay daal la macha allah moo tax ay 27 paires daal laa koy commande par état man xam nga par kii laay jënd. en gros waaw par non non par damay jënd par euh, man daal li may defar yeneen booy duñ ko sol. waa gis nga daggaguma sax étiquette bi nii <laughs> sama chemise moom xam naa ne ñaari gaynde yi waaw moom naa sëñ bàkk gaynde Fatma <laughs> waaw. daa nag dégg xam réew mi ni muy doxee nga ànd ak moom ci doxin boobu. noo xam nga Sénégal ñoo bëgg xale bu civilisé Sénégal ndeysaan réew lañ moo xam ñoom dañu bëgg lu baax. Sénégal tey jii bu ko yàlla soppi woon ñu jël seen France indi Sénégal jël Sénégal yóbbu France ci nga xam ne ñun ñoo civilisé Sénégalais yi bëgg nañ lu baax xam nañ lu baax te ñi ngi koy def te lu baax moom mën nga koo jaay ku ne ba mu des xale yi nag mën nañoo bañ a lekk bañ a naan waaye bu sang jotee ak defante di nga xam ne Sénégalais yi am nañ ci wàll kenn du ñoom <laughs> laa ilaha illallah dama ne la xale yi kay mën na loo rob bu nga leen nangam waaye bu 18 heures jotee hmm. li jàpp euh, Pikine hmm. ah, ñëw parcelle laal Médina ñëw Nord Foire fii ma dëkk. Eh, dëgg neexul waaye. dañu daan wax takkusaanu Ndar mais bii faa takkusaanu Ndakaaru la ñuy wax. waaw Ndar nag la fa amoon dafa mel ni moo nekk Dakar fi mu toll nii naaw amoon ñoom it ñu civilisé maa ngi leen di bu baax a baax di jaale sunu baay Gorbel Diagne mi nga xamante ni ma nga woon foofu ca Ndar di leen bégal nekkoon fa icône yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xar àjjana waaw ndax mas naa añe këram waaw mas naa añe këram mm-hmm. añ bu neex a neex a neex a neex mas naa ko faa añe kon mag sunu baay ja ji Gorbel Diagne yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na yàlla yërëm te yokk leeram suñu baay ju baax jooju loolu nag mënul woon ñàq nag ma tooñ ko nag ah, ci li nga xamante ne nag te def na ko waaye nag tey dañu ko seet si bëgg waxtaan ak maman ah, ci li nga xamante ni tey moo di jaar-jaaram li xamante ne moo di carrière am tey sénégalais seetlu Cheikh Mbacke gisoon ko ci li nga xamante ni tey moo di fecc mi mu mel ni Cheikh Mbacke mbanque marqué nga foofu sa emprent ba dugg ci li nga xamante ni moo di woy bi parcours fecc beeg woy bi looñu si mën a wax waaw fecc bi ñu ngi ko dooree ndax boo gisee man aar commencé wu ko Dakar man Jurbel laa doon feccantu c'est nag su ma ci demee dëggantaan dëggantaan Dakar laa ko defee mais Jurbel laa doon feccantu xumbali rek xam nga tànn biéeru sa sawaaneeg yooyu boobu ma nekk xale bu tuuti xam nga doom buur géwél doom ci kër goo bari cóol bari talmbat hmm. bari tungu ni ak i ndeer hmm. foo jaar yëfi dugg ci yow hmm. moo tax ba nu juddee ci région de Diourbel sama papa dugaloon ma daara xam nga géwél rek boo ko dugalee daara léeg-léeg ma jàngi léeg ma jàngi waaw mais nag amoon na benn magu bu ñuy wax Fatim kenn dama ko dëkkoon ci këri seex kër Cheikh la dëkk di nuyu suma mag ji Baye Serigne ñoom ñoo doon tëgg ak seen papa Saliou Ñing mhm. léegi nag su ma masaan a jógee suñu kër Jurbel da seen koñ mhm. damay daw bu ñu ne ma jàngel damay daw ñoom bu demee fekk leen ñu tëgg ay ay tuur ay tànn ma ànd ak ñoom mhm. ñoom su ma bëggee aar ñooñu la waaye aar daal wax dëgg yàlla Jurbel laa ko commencé indi moom Dakar bi ma ñëwee Dakar namit ah xamanteeg ah, Yves ña rakkam bu ñuy wax Mbàkke Seen waaw Mbàkke Seen ku dëkk Pikine ginnaaw raay xam na ko waa Pikine maa ngi leen nuyu waa ginnaaw raay Seen suma xarit la ñu ma man Mbacke Sène Jibi Mbaye Thierno Diaby Libaas ñu nekkoon benn groupe boo xamante ni ñu ngi woon Pikine ginnaaw daal di béy suñu waar ci aar bi ak Jami xam nga Jami Gueye suñu la Chéri Medoune waaw Jami Gueye ndax Jami Gueye est-ce que xam ne Jami yaayam daf ko doon dóor pour mu bàyyi fecc déggoo li wax de Jami Gueye yaayam daf ko doon dóor ne ko di nga bàyyi aar jamono boobu ñu ngi répété Kër Ndey Maane mhm. benn genre centre bu nekkoon foofu ci Pikine mhm. waaw ci eh, cité mhm. waaw Jami Gueye muy suñu rakk ma gis nag ni mu nekkee ci aar ñi xamul mën nañoo wax waaye man maa xam jami ku gëm boppam mhm. ku xam valeur am mhm. Médoune am na jabar mhm. maa ko wax Médoune am na jabar ju baax am na yaay faal xam nga li ñuy war ci jabar mooy yaay faal Médoune am na yaay faal jami yaay faal la te soo wax suñ ay ñoom magam ay binte binte géey suñu ma déggee nañ xam ne lii may wax war naa ko wax ci jami ndax suñu rakk la waaw bi nu débuté nekk noonu nag nekk ñun di xuslu foofu ci aar bi di xuslu man ak Mbacke Seen ji bi Mbaye Thierno Dia Papa Ndiaye mi tudd ñu Papa Ndiaye Thiou ñu nekk fa nag tànn béer yi xumbali tànn béer yi xumbali clip yi waaw clip yi clip yi clip yi xumbali nangam ba yàlla def ma ñëw saalu Pa Moussa Pa Moussa Sonko Sonkoy baayam di fa répété bale waaw di fa répété bale ñu nekk fa di répété su ma répété eh, ba kaw mi dem ñibbi parcelle dem ñibbi Pikine su ma répété ñëw dem ñibbi ba yàlla ni mu defee ah ni tournée amee Mbàkke seen ñoom ñu dem toog Europe man ma toog Sénégal noonu la Cheikh Mbacke dooree carrière bi nga xamante ni tey moo di carrière fecc bi nga def ci loo xamante ni nag képp kuy fecckat ci réew mi mën naa ne bàyyi na la xel ndax mën bi nga xamante ni tey xëy na suñu borom def na ko ci yow nga ci wane lu am solo loo xamante ni xëy na képp kuy fecckat bu gisee Cheikh Mbacke na der rek dina xam ne kii galère na jàng na li nga xamante ni mooy aar bi barki démb dama dajeek Papa Ndiaye ci Almadi mm. mu ne ma boo yi nga xamante ni jaar nañ ci man yëpp mm-hmm. yow laa ciy gis te du ma sëgg Papa Ndiaye mu ne ma Cheikh Mbacké ak sa xeetu civilisé macha allah sama catu gémmiñ ak sa xeetu personnalité ak ni la nit ñi bëggee barki Cheikhul Khadim soirée El Hadj Keita la génne El Hadj maa ngi koy nuyu ku baax la moom El Hadj Keita suma waay xam nga mu daal ne ma yow rek laa ci sax xam àddina lan moo fi nekk lu ne ci àddina bi tey laa la koy wax góor góorlu am na de waaye kenn du kenn kenn kenn kenn mënul wax ne man kenn du ma jàppale àddina bi dañ lay jàppale da lay jàpp rek nga toog nga dem suñu la jàppalewul doo dem xamul tax ma wax la loolu Papa Ndiaye moom dañ daan tukki suñu masaan tukki day jaay jël boo yëpp ne leen dugg leen ci beneen oto bu mag bi oto bu ndaw bi jamono bu mu yor benn golf ne mhm. ma maag yow ñoo ciy dugg loolu ci sama donte aas yi gënoon naa gën a ndaw mhm. ati mais ci ci ci personnalité mhm. waaw ci personnalité ndax nit kuy dund war nga am personnalité nekkul ne rek dangay nekk xale bëgg ku la yëpp wala nga tilim wala nga saltis àddina moo toll ci civilisé ak correct koo mën a doon da nga war a koo mën a doon nga war a xam sa valeur koo war a doon war ngaa xam ne àddina yemul ci benn jour mhm. tey bu fekkoon ne dama gaaw a xàddi wala ma nekk tey li ma li ma dégg lépp ci aar mhm. xam nga is nga ne baatu góor jigéen ci aar la gën a yombe mhm. nit kuy def aar ndax ku mel ni Cheikh Mbacke day sangu ba set di sol lu baax di parfum parfum yu neex léegi yow boo nekkee benn góor boo xamante ni tey ni ma Cheikh Mbacke mel noonu meloo noonu amoo loolu yàlla kiiw la loolu bu la rombee rombaat la romb la ay jigéen bu ko mën nga ko wax lu nekk waaye nit ku ne war ngaa gëm sa bopp xam ki nga doon xam fi nga jëm te boo bëggee dem bul def nii koo mën a doon si beeg dawal ko tu velo beeg dawal ko scooter mbër meek ku bëgg a dem ci Sénégal ak koo mën a doon bul gestu boo gestoo gis lu la bëgg war a téye wala nga dégg baat bu lay énervé jubalal nga dem ku ma man daal gëm sama bopp ak xam sama valeur ak xam ki ma doon moom ma indi fii ma tool donte sax lépp ñëwagul. ndax li ma bëgg mooy balaa déwén sax ñuy le affaire yi gën a nooy. Mm. te yàlla defal ñu gudd fan defal ñu wër képp ku nekk ci aar jàppal fonkal gëmal. Mm. tarbiyool te xam ne lépp dina ñëw. te xam ne lépp dina ñëw waaye bu ñu seetloo li nga xamante ne rek wax nga ñu ko ci fecc mi tey ñu dem ba ci biir rek gisaat Cheikh Mbacké changé leneen dugg ci li nga xamante ni tey moo di musique bi indi li nga xamante ni tey moo di touche di way lu doy waar loo xamante ni xaaruñu ko woon ci yow loolu fan la jógewaat encore. non ba tey aar la bàyyiwu ma fecc bàyyiwu ma fecc Cheikh Mbacke fecckat la ba tey bàyyiwu ma fecc maa ngi fecc naanu wasal kin di njoor ca kaw di daaneel bàyyiwu ma fecc de mais géwél moo sob wax naa ko fan ne ci sama benn interview ma ne géwél moo sob géwél mooy jëm géwél dafa am ñett yoo xamante ni moo ko moom moom moom tëgg moom moom fecc moom moom way bu mu ci def wàcc na su boolee ñett yëpp wàcc na mm-hmm. géwél boo ko fekkee mu tiim cool naan pataas mm-hmm. takki takki pax pax ki jagi-jagit moo ko moom boo ko fekkee muy yuuxu daan der kaw moo ko moom boo ko fekkee muy siif moo moom loolu waaw tey Cheikh Mbacké xaj na wayul Cheikh Mbacké fecckat la mais da ciy boole ay taasu ndax Cheikh Mbacké dafa am ay nit yu ko bëgg Cheikh Mbacké dafa am ñoo xamante dañ ko fonk daa ko xamante ne ay nitam lan dafa am ndaw yoo xamante ni dañ koy déglu faaw Cheikh Mbacké tamit bañ a yaccaaral bañ yem ci fecc rek ah? Sëñ Mbàkke day boole fecc boole taasu génne ay singalam tudd ay géeram ak génne loo xamante nit ñi buñ ko dégloo dañ ci am tuuti njariñ waaye bu déglewul yeetewul ay naxaate la ah te ñun ay ndaw lañ ci aar la ñu nekk buñ ñu demee ba opté yëpp bàyyi yëpp opté aar opté musique kon dañ cee war a nekk def ci sunu bopp yeesaay loolu kese la waaye Cheikh Mbacke ngi danse ba tey <laughs> Cheikh Mbacke ngi sama sama sama bi di génn lépp maa koy fecc Cheikh Mbacke ngi fecc ba tey waaw waaye nag ay doom buur géwél lañu waaw duñ ay portugais waaw dëkkuñu Congo dañuy def rek loo xamante ni tey suñ ñu nu bëgg bu doon cent personnes wala cinquante personnes suñ génnee benn affaire ñoom seen xol bi dina sedd ñu ne ah Cheikh kat waaw dëgg neex ndax ki la bëgg chaque jour day bëgg ngay waaw ki la bëgg toog day bëgg chaque jour kenn du lay jur day bëgg chaque jour ngay def lu nice waaw nag comme yàlla def nañu mi ngi nuy may suñu wërsëg ñi nga xamante ni suñu wërsëg ñu ngi ciy jot ñu nit dinañ def yoo xamante ni suñuy nit benn benn ndax ndànk-ndànk mooy jàpp golo ci ñaay. na nañoo xaar du yàgg dara Cheikh Mbacké ci li nga xamante ni moo di album donte ne gis nañ fan yi passé nga def benn single boo xamante ni bu mu génnee gaa yëpp apprécier nañ ko. noo tey ma wax la benn affaire ne la Cheikh mhm. euh, yi ak benn point rek bi nga xamante ni tey mënuma toog ak moom te duma waxtaan ci ki nga xamante ni mooy leader am di Maria Sine Wally Seck Cheikh tey dañoo seetlu nag sa leader bi nag net na nekk na nit koo xamante ne xaw ma tuuma moo neex a teg ci kawam xaw ma sénégalais dañu ko teg xaw ma daal nan laa ko mën a jàppee la moo tax à chaque fois rek bu ñuy joxeñ Wally sekk la ñuy joxeñ ba keroog Côte d'Ivoire gis nañ encore li nga xamante ne moo fa am ci digganteem ak ki ñu wax muy Adja Diallo lan ngay wax ci loolu waa xam nga sama kilifa rek bëgguma ko tooñ ndax daf maa woo tere ma billaahi wallaahi taalaay barke Seydina Mohamed daf maa tere interview yi sax waaw daf ma tere interview bëgguma sax wax ci moom mais damay tënk rek benn affaire boo xamante ni comme tere na ma ay wax te bu da demee Cheikh tëratul wax te nag sa nit ki bu ngeen dee ànd lim bëgg nga koy defal soo bëggee seen ànd yàgg lim bëgg nga koy defal daf maa tere wax xoola nañu liggéey ñun ñëpp nañu liggéey ñun ñëpp laa wax nañu liggéey te waaj wax ñun ñëpp laa wax. d'accord ñun war a liggéey te wàññi wax mais ah, lan moo tax à chaque fois rek euh, waali la lan la la tooñ la wala lan la. waaw non boo gisee ma wax la benn affaire mooy su suñu continuer rek damay wax ndax bëgg gi ma ko bëgg xam nga àddina bi xam na ne ku laal waali laal ma ma fekk nga wax koo mën a doon. ne Cheikh Mbacke sax pour nit ñi xam foog ñu teg ci waali la waaye comme tere na ma ne ma Cheikh Mbacke soo toogee bi sax ma ne gars yi man rek maa ciy wax Ramadan gars yi ak man rek maa ciy wax te daf ma ko tere te loolu lépp cofeel gu ëpp la waaye dama ne la soo gisee man technique daal ne la nanu liggéey ñun ñëpp sénégalais ñëpp te yi wax te ñaanal Cheikh Mountakha Bachir mu yàgg fi di jaale waa waa Laayeen xalifa bu mag bi fi jógee ñooñu ñëpp dinañ leen jaale mais ba tey Cheikh bëgg damaa bëgg ma li ma la laaj laa bëgg nga may ma ci tuuti rek réponse quoi la moo tax a chaque fois waali lan la waa jiitu da koy def jiitu da koy def. te bu ñu déggee lii tuuma bi bu ñu paree jëlaat la leen teg bu ñu paree jëlaat la leen teg lal jiitu la rek hmm. jiitu rek oto bi ci ginnaaw kër du ko korne lépp jiitu la <laughs> yàlla na yàlla def ñu jiitu <laughs> kenn dara du jiitu. Hmm. boo jiitoo. la ilaha illallah jiitu rek. <laughs> gis nga boo doon dem marché Dior <laughs> kalandoo ba ca kanam bu am te yaas amee <laughs> moom rek la ñuy na bu demee ñëpp dem mais fekk mi ngi taxaw kenn du dem jiitu la rek. déranger ñu fi ne boo tax à chaque fois lu ne de dal ci kawam. mooy dama ne dama ne la tey moom euh, wax dëgg yàlla. bul benn du ñaar Cheikh li bul def lii ndax lii nii lii neexuma xam nga tey bu ñu lay tuddal ay nit ngay wax nangam day indi ay concurrence wala nangam a nga am te am na loo xamante ni bu dul neex yàlla weesu nañ ko waaw tey man Cheikh Mbacké dafa am vie xam nga ñu war ci wax muy artiste donte waali magam la léppam lañooy ànd muy patron fu mu jëm yóbbu ma di sama lépp nekkuñu ñaar kenn lañ ndax bëgguma ko bëgg ak bëgguma bëgg waaye daal li ma la mën a wax lépp rek mooy jiitu waaw jiitoo waral coow li <laughs> waaw jiite moom coow li mu bëree rek mooy xanaa yow ñi nga ñi nga jiitu da nga leen di déranger déggoo ma jàpp xoola baatu jiitu boo ñibbee sa kër da nga koy traduire <laughs> baatu jiitu waaw <laughs> jiitu rek <laughs> cay jiitu. tey bañ ma wax ko rek waaye xam naa de li ma ko wax mënoon na ma cee tontu rek ñu waxtaanee ko mais amul problème gis naa ni nga may def. <laughs> waaw mooy li ma expliqué dafa dal daal comme que ñëpp a ngi wax. Hmm. te kenn xamul kenn du wax ci yow. traduire sa xel ne kon liñ la xam la. ak la nga jiitu ak li la yàlla defal. waaw. naka nga gisee tey ci li ñu ko boolee ak artistes yi nga xamante ni tey bokk na ci artistes yi ñu gën a xarañ ci àdduna bi ñu boole leen yóbbu leen fi nga xamante ni tey moo di Côte d'Ivoire ñu war fa def li nga xamante ni tey moo di seen prestation naka nga gisee loolu aussi tamit waa li bokk ci. waaw loolu lépp jiitu la rek. damay ji di kàttal ci baatu jiitu. waaw jiitu rek. waaw ci baatu jiitu rek. yàlla na nu yàlla defal jàmm te yàlla defal ko sutura. waaw yàlla xam na li ñëpp bëgg. xam ne li mu bëgg xam ne ma bëgg xam ne nga bëgg képp yàlla ku ne yàlla la yàlla defal li ci yow waaye jiitu la rek li ma la wax ni sànq rek jiitu la ndax bu fekk ay say morom yu bari nekkee ñu tànn la am na loo man waaw loolu aussi tamit naa ñu wax ci changement musical bi ak ouverture internationale loolu tamit lan nga ciy wax mooy xam nga billaahi walaay taala li ma leen wax sànq rek. dafa mel ni dafa dafa seggaat musique dafa indiwaat leneen ci musique changement musical su ma su ma woowul woon. kii bi nii xam nga lu ma wax. dernier bi ñu mujjee di waxtaan. am na monsieur Mbacke ci kër gi moo ma ne ma barke yonent yàlla Muhammad dimbali ma maa la ko ñaan ngir sëñ Tuubaa mi nu bokk bu la kenn yi ba nga wax sax Cheikh mu ne ma mu ne mën nañ noppi te liggéey te bëgguma ko tooñ ndax gor laa barke Serigne Saliou Mbacke dernier kii bi loolu la ma wax. mu ne bu ñu la ci tudd tudd ay waykat di ma tudd di tudd ay waykat di tudd ak nangam Cheikh xam naa la te billaahi wallaahi taalay nanu dem rek ñu xool waaw bëgguma ko tooñ te sama waxte bëgg naa ko bëgg boo xamante ni bëgguma barke Serigne Touba yéen maa ngi yéen benn lañu xam ngeen musique bi fi mu toll ak la ci am ak fi ki waaw waali fi mu egg ak musique bi ni ni mu ko def ndax keroog ah yéen gis naa ngeen dugal ko te yéen li ngeen may laaj yéen yéen a gën a xam mais pour sénégalais la man laaj lu ma sam bopp sénégalais lay laaj. mais sénégalais ñoo ma gën a xam ndax ñoom ñoo ko tànn. ñoom ñoo taanu Wally hmm. waaw sénégalais ñoom ñoo ko tànn waaw. Ah, mais tamit ñoo war a waxal pour ñu dégg. waa déggoo ma leen ñi tànn <laughs> gis nañ ñu bari. Hmm. léegi ñu tànnut nag loo leen wax. non ñi tànn rek <laughs> kenn fi ne. <laughs> laaj rek maa bëgg a wax loolu mais ma wax de. mais kontaan naa bu baax a baax a baax ci jàkkaarloo ak yow ah ni ma koy waxee rek artiste la waaye aar li mu tënk dafa bëri waaye moom da cee boole boo xamante ni tey foo toog rek tey Cheikh Mbacké nit ñi dañuy kaf di ñuy reetaan loolu tamit mu doon. waaw bu bees mi ngi waaj a génn. Ah. ko nag sama waaju baax. waaw di nuyu sama sama samay xarit. di nuyu waa Jurbel bu baax. ndax ku wàlliyaan sa dëgg tagul. mënu ma mel nenn ba jaay ko waa Jurbel. fa laa juddoo de. dëkkub Seexul Xaddim ba ku ne da ngay tiitaroo Thiès ñii tiitaroo Pout ñii tiitaroo Ngaay ñii jam ñaajo ñii wili ngara man may tiitaroo Kébémer man may tiitaroo Njaareem dëkkub Seexul Xaddim ba maa ngi ñaan Cheikh Mountakha Bachir yàlla na fi yàgg waati waawoon ka fi toogal toogal fi maam Alaaji Malick yàlla na ko fi yàlla defal jàmm mu liggéey eggale liggéey bu maamam Kaolack bu Kunta Njaasaan maam li mu laay mii ci yoof xam ne bu ma fi dëkkee ba tey cay bàyyi laay waaw lépp na maa ngi kontaan bu baax di nuyu ah sama xarit sama mag sama lépp sama leader ki nga xamante ni bëgg na ma lool ma bëgg ko ba àddina xam ne dama koo bëgg ragal féete day xañee wërsëg man la Cheikh Mbacke Wally Ballago Seck international sénégalais taalibeeb Serigne Touba Wally lépp lu nit di am ci raaya wala takkaay lépp yàlla na la ko yàlla defal yàlla defal la wér mucca la di nuyu sunu yaay soxna ay dara di nuyu ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu suma xarit Pape Aline Ndiaye international sénégalais ah, waaw waaw Pape Aline séeri na maa ngi koy nuyu bu baax du nuyu Sénégal gi yëpp Mor Ndiaye sama tër maa ngi koy nuyu ah Mor Talla Fall maa ngi koy nuyu bu fashion Turquie maa ngi koy nuyu bu baax bu fashion Sénégal gi yëpp képp koo xamante ni daal yaa ngi Sénégal ma lay wax man Cheikh Mbacke maa ngi lay wax nanu waajal màggali ay murit lañu <laughs> dañuy màggali dañuy màggali mbokk yi noonu la ko waxee rek ñi kontaan ci moom bu baax a baax a baax seqoon ak moom li nga xamante ni moo di waxtaan ni ma koy waxee rek kuy bëggal Sénégal la kuy bëggal ñi nga xamante ni tamit moo di askan bi ci milliard bi nga xamante ne ci la nekk tey nag ñu toogoon ak moom di waxtaan mbokk yi di kontaan bu baax a baax di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf